bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursaliin sayyidina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmain mbokk yi bàyyi xel ci Sud FM seen rajo asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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 ci ànd gi jërë ngeen jëf ci soññee gi ak ñaani yi waxoon naa ne ñaan moom lu am solo la te it ñaari xaaji nit rek ñoo koy déglu kenn ki nga xamante ne da ciy waaroo lool békki lool ak ki nga xam ne da koy moytandiku mu di ko déranger. zayadakkaru man jenn yatajannabuha al atqa loolu rek la ndax alquran njàngalem yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay nit la doon waxal moo tax ku koy wax rek jëf ju nit di jëf ngay waxtaane am koo xam ne bi mu déggee ngay tudd ay yëf tam nekk jëf joo xam ne ca la nekkoon benn mu yëgee ca ne ndimbal ñëw na ndax jot naa lu may leeralal li ma doon def ndax dama ko war a bàyyi wala dama caa war a continuer wala muy koo xam ne da koy dégg ba noppi sakk ay noppam di taañaañal ndax amagut dégg wala ma bu muy jël ci jenn wax joo xam ne dana ko dimbali ci yoon wi nga xam ne moom la jaar ñaar ñooñu ñooy ñaar ñi nga xam ne ñoo nekk ci àdduna moo tax nit da yori noppam di dégg ba noppi suñ borom ne ko doo dégg déggul dara nit yori bëtam di gis suñ borom ne ko gisul dara nit solu bañ jàpp ni ki boromum xel la suñ borom ne jëfandikoo wut am xelam zummun bukmun umyun yooyu na ku ko def hum laa yarji'un doo delluwaat mukk ca mbaax ga doo delluwaat mukk ca yoon wu njub wa ndax dangaa sànku moo taxoon mu ne ñi mel noonu ñoo bàyyi ma yi ñoo yam dem ba ci biiri waxam sax mu ne bala bàyyi ma sax tane leen ne xol yi mel noonu mooy moom montagne yi ñoo yem dem ba mu yàgg mu ne wala montagne yi sax gën leen a nooy ndax am na montagne yoo xam ne danañ toj di màbbu di daanu ndax ragal seen borom subxanahu am ñoo xam ne nag seeni xol dara yëngalu ko yàlla gaaruwaale na nit ci loolu ba tàyyi te ragalu ko. waaye di ko junj rek naan ko xanaa war ngaa xool ci lii ndax nga am jom war ngaa xool ci lii ndax nga dellu siwaat war ngaa xool ci lii ndax nga xam yaay kan waaye doomu aadama moom lek léeg bu xasee ba dog aw yoon da cay taañaañal rek nga xam ne daanaka jikkoy gunóor lay xaw a yor feeg mbëkkut du dëpp waaw day mel ne jikkoy gunóor la yor moom daal feeg dóorut boppam ca la ca kanamam rek du dellu siwaat fa mu jóge woon yàlla ci yàlla musal jikkoy gunóor baaxut déedéet baaxut moo tax suñ boroom ne alxuraan ji ma wàccee ci yéen ngeen ne cocc ba nanguwu leen maa déggal su ma ko wàccee woon ci montagne yi de montagne yi ñoom dañuy dañuy màbb law anzalna hadha alqurana ala jabalin la raaytahu xaasian mutasaddian min xasiyatillah bu booba ngeen gis leen ñoom ñëpp ñu moñoxoo loolu nag misaal la wa tilkal amsaal nadribuhaa naas dama ko tegal nit ñi kon an naasu la ko tegal waaye moom nit léeg-léeg jëfandikoo ak niteem da koy jafe ndax bu demee bay bëgg yow day am lu ko nguufaan di ko tàpp-tàppal mu wéy di dallu rek bu demee ba ne ñokket rek mu nguufaanaat ko rek tàpp-tàppalaat ko rek mu gën a wéy di dallu rek waaw di nelaw rek ni ciy nelaw rek ni ciy nelaw rek waaw ne ciy nelaw rek annaasu niyaamun waaw fa isaa maatu eh, bu boobaa fa la ñuy yeewu waaw mhm. intabixu nit ñi dañuy nelaw rek waaye ku dee yeewu ku dee yeewu su ko defee ñu ne nag yeewu googu lan la koy jariñati yeewu googu lan la koy jariñati xanaa réccu rek law laa axarta nii rek yàlla boo ma fa ay boo ma mayaatoon deux minutes wa arxabul asiyaahi lil amwaati ila dunya maal xayaati walaw suwayatan faqat li yacmalu saalihatan tanfaxuhum in xafalo sëriñ tubaa nee na ñi faatu boo leen fekkoon fañ tëdd laaj leen luñ gën a bëgg mooy dañ naan la dellu àdduna donte benn minit la dellu àdduna donte benn minit la nga benn minit loo ci mën def mu ne laa ilaha benn minit bi suma ko su ma ci jotaatee tukkal am réew waaw su ma ci jotaatee dinaa ci def jëf yu bari yoo xam ne dana ma jariñ su ma dellusiwaatee kon kii am temps rek laa bëgg a wax ne na màng dundam googu ci topp boroomam subxanahu wa taala na ko ci màng léeg-léeg del jël sa machine di calcul temps bi nga joto dund wala temps bi nga jàll ci bés bi yépp lan ak lan nga ci def li nga ci defal sa àdduna te muy lu am njariñ li nga ci defal sa àdduna te muy lu ñàkk njariñ li nga ci defal sa àdduna te mënoon laa lor waaye nag li nga ci def sa diggante ak sa boroom li nga def te yàlla rekk tax ci jëf yu baax ak mooy yàlla yi nga fi mooy ak temps bi nga fi sànq te amalu la benn njariñ kii def loolu mën naa bañ a am lu muy rëccu ndax dunduk doomaa dama ci temps la tënku ci temps la tënku mu war a góorgóorlu ba màng temps am boobu ndax am na jamono jum fi nekkee woon mënul dara booba suñ borom ne ko topp ma la dara am jamono ju néew joo xam ne dana man dara waaye la muy man jaxasoo ak yu bari ndax wujjëm bi fi nekk di wujjeeg moom a tax wujjëm woowu nga xam ne mooy seytaane fas ko yéenee gàllankoor wujjëm woowu fi nekk te mooy ay bëgg-bëggam muy xëwa bànneexam wujjam woowu fi nekk ta mooy àdduna ne ci kanamam ak i jalt jaltam ak gàllankoor yi muy tegewaate ah, bu ko defee xam nga loolu leneen lay doon wa arqabul athiyaahi lil amwaati raddun ila dunya maal ayaati waaye nag ki dund muy doomu aadama bi ñetti temps yi muy dund war na cee bàyyi xel ndax benn bi rek benn bi rek eh, eh, ci lay am nu mu taxawee benn bi rek ndax temps bu njëkk bi du man dara lu man dañ ko koy manal temps bi ci topp mu manal boppam tuuti bu fi yàggaatee tuuti tëlewaat ba lu manati dañ ko koy manal kon xam nga moom man manam yi ay diggante la yu gàtt man manam yi ay diggante la yu gàtt yoo xamante ne lim ciy man du bari góor góorlu nag moo ko ci war laxasaayu ci diggante boobu nga xam ne moom lay manakas néew soxlay àdduna yi ne te mooy soxlay njaboot gi tawat di ko fi gaar yitte yu baree bari dox fi yu baree bari dox fi digganteem ak topp boroomam foofu nag la war a yeesalaatee laxasaayam ba góorgóorlu ci lépp lu man na occasion yu ñu nekk ñaari yëf sequñu ci te ñaari yëpp seeni njariñ nit ki mënu koo lim muy alquran ak koor assiyaamu wal quran ñoom ñaar yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na dañuy ràmm jaam bi ëllëg yowmal xiyaam koor ak alxuraan ëllëg yowmal xiyaam dañuy ràmm ñu leen doon taxawe ndeysaan nga xam ne boobaa koor gi day ñëw mu mel ne ni ma la ko waxee noonu ci ne la koor ak alxuraan ñaar yooyu séq jaam bi nga xam ne bu ci profitoo daat ci amee ngërëmal boromam subxanahu wa ndax yi nga xam ne moo ci am ci aw yiw asiyaamu wal quraan yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne yasfaani lil abdi yowmal xiyaama ñoom ñaar dañuy ñëw di tinul jaam bi ëllëg yowmal xiyaam koor gi ñu nekke woon di ci yendu di ko dund di ko taxawe yowmal xiyaam mu taxaw tubayul ñu moom ca kanam borom bi subhanahu wa taala tinul ñu tinul ñu doon jëf joo xamante ni jëf ju am solo lay doon kuñ ko léebal jàngal la ko nga jàppe ko ay cax wala nga jàppe ko lu fi jaar di jàll wala nga jàppe ko événement rek daa mel ne da ngay desee dégg bu baax a baax solo si nga xam ne moo ci nekk solo si ci nekk fu ko waay takk ci ab rëyaay rek rëyaay ga weesu na ko jaamu yàlla yépp am nañ wàccuwaay ci suñ borom subhaanahu wa taala waaye nag koor moom dafa am leneen lum ko jagleel nee julli li muy rëy rëy di ponk bu rëy ci ponk yi lislaam yi suñ boroom digg na ca aw yiw waaye ba mu ñëwee ca koor waxut julli maa moom waaye dane koor moom maa ko moom maa ko moom ji tegtalewul ne moomut yee waaye fonk naa ko lay tegtale ndax dadut lu yomb dadut lu yomb moo tax bu ci boole njàmbat hmm, bul woor di jàmbat bul woor sànq say waxtu jàpp ne koor gi rek war na laa not ba waroo def leneen def ko daal muy weer woo xam ne weeru xéewal la te dafa gaaw màng ko sa kemtulaayal kàttan moo tax koor bu lay tinul yowmal xiyaam baat yi lay wax suñ boroom da naan ko waa jiikat manaathu taama wa sahawaat binnahaar dafa bàyyi woon mboolem ak lekkam mooy xéewal yim daan xéewloo ci bëccëg bi bàyyi bànneexi bakkanam yu baree baree baree bare bari ci mboolem bëccëg yi ndax man kon ki koor da ciy dégg ne ñaar yooyu moom da ko war a bàyyi ni mu bàyyee lekk ak naan noonu la war a xeexeek bakkanam nag noonu la war a xeexeek bakkanam bakkan bi léeg mu fipp am xeeti wax yu mu bëgg a def yu ko bëgg a neex yu bëgg a dundal xolam waaye nga bañ nga bañ gis nga ab jullit bu seetloo ne bisu koor gi yépp am na jamono joo xam ne musique laa daan déglu góor góorgóorlu naa ba koor dox sama digganteeg déglu musique ma won ko ginnaaw am ku ne man kat ma daan jaar ca kesk ba dugg ci ak carte am yu ma fa def waaye koor gi moo dox sama digganteeg loolu am koo xam ne danaan léeg ma daan xëy bureau ba wàcc waaye duma ma julli léeg damay ñëw ba ci kër gi jullee ko fi koor gi dox na sama digganteeg loolu bu boobaa koor gee ngi doon nag mi ngi mi ngi faj mi ngi faj ci moom bu doon garab la gu muy naan day wax ne mi ngi tàmbulee def ci moom ay jeexital mi ngi tàmbulee def ci moom ay jeexital tàmbuli koo faj nga xam ne nekkul ne bàyyi lekk ak bàyyi naan gi rek ko tax a ñëw waaye noonu yi mu doxee sa diggante lekk ak naan noonu lay doxee sa diggante yu bari ndax dafa bëgg a sa attention ci sa diggante ak ki ki ak ki la tere lekk ak naan sa diggante ak ki lekk ak naan te kooku mooy suñ borom subhaanahu wa taala moo la ne bu fi lekke wax la ne bu fi naane diiru bëccëg bi te gisoo ko te gisoo ko waaye danga koo gëm lim la wax gëm ko ci kump nga ne ko loo may fayee mu ne la aljanna laa lay fayee te aljanna moo la war a gënal yii nga ne ko gënal na ma ko kay mu ne la ay ja noonu yi mu la waxee loolu nga di ko sóoraale ba boo nekkoon ci roq bi fu kenn nekkut doo lekk doo naan di ko sóoraale ba nga xam ne moom dong nga tax nga di ko def nit taxulaa woor noonu nag la bëggee mu nekk benn formation ci yow muy formation yëg-yëg sa diggante sa borom te mooy ragal ko bàyyi ko xel moo tax bu koor gi jeex mu ne diplôme bi nga ciy amee mooy attaqwa te mooy ragal yàlla ci biir loolu weer la woo xam ne weeru alxuraan la moo tax ma waxoon la ne léegi koor ak alxuraan ñaar yooyu séq la waa ji ne man de bi ma wooree dimbali na ma ba daan naa xëy ba ngoon jot sama bët bii du tegu ci kaamilu alxuraan laa ilaaha illallah daan naa xëy suba ba ngoon jot jenn ay alxuraan du ko jàng jullit bi nag bu bëggee xool ndax perte na dëgg dëgg dëgg na xool loolu na xool ndax bi ma xëyee bajant bi so ndax jàng naa fi jenn ay alxuraanam déet su dee jàngu ko fi nag lu gën a doon perte ci dundu jullit bi loolu amut amut waaw donte sax da koy mokkal sax tari ko jabbutu ko loolu mooy yiwu mag wi waaw léeg-léeg nag nit mën naa xëy ne tey marché neexut damaa perte tey dëkk bi neexut di jàmbat rek nga ne ko lu tax mu ne damaa yorut xaalis waaye nga ne ko sa diine nag lu ci yokku mun la sama diine dara yokkuwu ci waaye yëgut ne li ñàkk a yokku ci diineem du ma moom bu diineem wàññeeku woon sax te yee di yokk sax garawut du ko yëg danaan dëkk bi neex na tegalee tànkam ndeke dëkk bu neex mooy nag bu yee amee itam ba saayir si mën a neex sa diggante sa boromit di yokku nag ndax foofu itam neex-neex ba fa nekk soxla nañ ko moo tax alquranul karim moom it day wax ëllëg suñ borom subhaanahu wa taala tinul ki ko doon jàng waaye déglul lim koy wax manaathu nawma bil leyli kii day maa ko tere woon nelawi guddi kon bàyyi ba nit ñi tëdd nga ne ñokket ubbi sab kaamil jàngal li nga mokkal rek lum saar wa tuuti tuuti lu saar wa nekk ci téereb suuf ba ak lum nekk ci téereb kaw ba moo xam julli nga ko booleel moo xam danga koo jàng waaye jàng ko jàng ko jàng ko waaye nag di ko dund di ko dund di ko dund alxuraan niñ bëggee di ko jàngee noonu noonu lañ bëggee nit ki di ko dunde noonu ndax di jabbutu baat yi am na solo waaye nag di settantal maanaa yi moo ko ëpp solo foofu di setantal maanaa yi góorgóorlu bañ la koy setantalal nga di xëntewoo di ko jéem a xam di ko jéem a xam buñ la ko setantalee nga jàpp ko téye ko waaw téye ko màndaxe ko ba noppi nag di ko dund di ko dund lu mu tere rek nga góor góorlu ba kenn du la ca seen waaye lu mu digle nga góorgóorlu ba ku siggi seen la ca su ko defee nag say mbir daal di tàmbulee tegu ci yoon say mbir daal di tàmbalee baax dëgg-dëggi baax loolu mooy njariñul jàng alxuraan lu bari lu bari njariñ la te di ko dund téere la boo xam ne day déranger day déranger képp koo xam ne teguwoo ci aw yoon ndax buñ la ko waxee niñ la ko war a waxele tekkile la ko noonu jàngale la ko noonu nga ne kii waxal man lay wax kii wax man lay wax ki ne ci yoon buñ ko waxee yiw wa fa nekk ak yu rëy yi suñ borom digle mu daw wuti ko kon nag jàng ko waaye gëm ko waaye dund ko waaye teral ko teral ko mm-hmm. téereb teraanga la dañ koy teral wa innahu la dikrun laka wa li xawmika wa sawfa tusaluun loolu la yàlla waxoon ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam alxuraan sa teraanga la képp ku téye alxuraan di ko jàng ka jàngale te di ko dund alxuraan teraanga la ci moom waaye jullit bu ne nag am na responsabil responsabilité bu rëy digganteem ak boromam ëllëg yow malxiyaam ci téere bi te danañ ko laaj nan la ko téye woon kenn ku nekk danañ ko laaj nan la ko woon nan la ko doon dunde moo tax bu nit ki tëddee ci biir bàmmeelam ñu di ko laaj lan moo nekkoon sab téere responsabilité booboo tax lan moo nekkoon sab nga ne alxuraanul karim jàngoon nga ko nga ne non man tuuti rek ah bi ma nekkee xale jàngoon naa waaye léegi moom damaa fàtte man kay li ma dal <laughs> loolu ngay tontu malaaka yi li ma dal man kay fàtte naa la ma jàngoon laa ilaha illallah lan moo nekkoon sa téere alxuraan alxuraan ñaata saar la di laaj ba ca topp nga naan ñaata saar ah loolu de xaw ma ko ci woon nag man de daan naa jëm ca daaray koñ boobu ba ma nekkee xale waaye après damaa bàyyi da daa dugg école dundatuma ko tey jii bu fekkonte ne alxuraan jëmmi nit la yow loo loo loo ko defal loo defal alxuraan ci ci colam gi loo defal alxuraan ci yaramam wi loo defal alxuraan ci añam bi loo defal alxuraan ci reeram bi loo defal alxuraan ci dundam gi te alxuraan suñ borom nee na maa ngi giñ ci fa biddiw ya di fanaan fa biddiw ya di jóge falaa uqsimu bi mawaaqi'i nujum yemu ca mu ne xam naa sax da ngeen a giñ ba giñ googu du leen déranger wa innahu la xasamun law taalamun azim giñ googu ma giñ de bu ngeen ko xamoon da ngeen xam ne lu rëy la ñu ne ko yàlla looy giñ mag mu toll ne yow wax rek doy na nekk fii di giñ ñii dañuy tiit loo lan lu xew mu ne innahu la quraanun karim li may giñ mooy alxuraan day téere bu tedd la téere bu tedd la fii kitaabin maknuun wallahi yemu ca yàlla nañu laa yamassuhu illa almutahharuun ndax di ñu ko présenté rek moom alxuraan alquran mu ca mu nañu tanzilun min rabbil alamin ci man la jóge samay wax la kon ku ma fonk fonkal sama kàddu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam laa ko wàccee moo ma gënal ci yéen te nag lu ne teg waa ko ndax alxuraan lu ne lu ne waaye wàccewu alxuraan ndax sonal leen dama koo wàcce ndax yërëm leen dama ko wàccee ndax yërëm leen taaxa maa anzalna alayka alqur'ana li tasqa illa tadkiratan liman yaxsa allahu akbar tanzilun mi man xalaqa al arda wa samawati al ula arrahman daa di ñëw mooy suñ borom mu bari yërmande googu ne ca kaw aras moom asamaan moom suuf moom li ci diggante bi sañcee doxale nu ko neexe waaye nag taaxeerlu lool ba jàngal kilifa nan la war a taaxeerloo néggandiku lool ba jàngal kilifa gu mën di doon nan la war a néggandikoo ci mbir mu mën di doon waaw tooñ ko tooñ gu wër jalgati lim gën a fonk xuus ko waaw xuus ko bu dee ab buuri àdduna yi la nga ne nga offensé ko waaw offensé ko yàlla bis bu set ñu offensé ko ci penc mi bis bu set ay liñ koy offensé <laughs> waaw liñ koy offensé lu ne ñu jiiñ ko ko ne ci suñuy suñu bopp suñ bi di di di taañaañal féttéerlu beddi géew rek waaye ku fa kastalu rek ku ñëw jiiñ ko ko ne ko mooma de lii moo ko def waaw bu xéewal amee nag ñun la jàmbaar nga xamoon nañ ne lii jomb la yow danga teel a tegu ca yoon wa daal di ko cay seppi ba mu set yàlla ne xoolal rek xool seen att bii ni ñàkk ma àndoo waaye mu ne garaawut lu tax mu ne arrahman man maay aji yërëme ji <laughs> te garaawut garaawut da ngeen ñëw da ngeen ñëw li ma li ma gënal rek mooy gaaw leen a ñëw gaaw leen a ñëw gaaw leen a dëpp leen nag bu kenn dox sama diggante yéen ndax dama leen a bëgg dama leen a bëgg ba noppi jaar ak yéen ci ay barab nga nekkub liir ma déey la ni ñu nàmpe ngay nàmp te kenn jàngalu la ko defal la ngay dox di daanu ñu lay teete ngay jàngaree maag yow rek kenn fekkewut wutal la ñaari nit ñu la séq nit ñi di la defal lépp te duñ ko sañ a bañ bëgg la lool ma def la ci xolum ñëpp boo màggee nag ku dox sama diggante yow boo ma fi bàyyee topp ko rek xamoo li ngay def boo ma fi bàyyee topp ko rek xamoo li ngay def bu la ko dara jaral moo tax jàng alxuraan ak setantal ko am solo lool léeg-léeg da ngay gis koo xam ne ñim dëkkal dañ naan dafa baax ndax moom daa jàpp ne mbaax gi mooy buñ noddee naa dem ci jàkka ja ak a baax waaw noddu ñu dem ci jàkka ja baax na lool di julli waaw bu dee góor la kurus gaa ngi loxo bi koppati maa ci loxo bi waaye kum jëflanteel nga ne accam waaw kum jëflanteel rek nga xeeb ko mën na laa wor mën na laa wor ci ay jëf mën na laa wax lu du dëgg du problème mën naa lekk sa alal du problème waa këram gërëmuñ ko <laughs> waaw nga xam ne bu génnee dem ca jàkka ja duñ yàkkamti mu ñibbisi waaw mook soxnaam buñ tëjoo ci néeg bi xare ba daal lay doon soxna si ci fitna lay nekk ndax wax na ko yu bari yu du dëgg bu dee soxna si itam jàpp na ne diine ji moom mooy man muuru naa oustaz day sama xarit la maa ngi déglu oustaz waaraate wi nangam ne ci yooyu waaye digganteem ak njabootam digganteem ak boroom këram digganteem ak i mbokkam dara baaxu ci waaw defu ci benn yitte defu ci benn yitte jéemu ko dund góor góorgóorluwu ci jaamuwut sellalut bu boobaa loolu du am du am benn njariñ ci moom bu boobaa lool loolu du am benn njariñ ci moom moo tax dañ koy dund mhm. dañuy dund li nga xam ne mooy sa diggante ak sa borom subhanahu wa yi ngay dem di defi di def ay jeexital ci yow yi ngay dem di def defi di def ay jeexital ci yow mhm. day def ay jeexital ci yow mu amal nit ki njariñ doo ko naan rek waaye danga koy <laughs> danga koy dund <laughs> danga koy dund bunt yu am solo la te ci la ñuy xamee nag mbir mu nekk ñu firil ko nit ki ba mu xam ko ba mu xam ne ab jullit ak col ci la bokk lieu yi ngay dem ci la bokk di jàkka yeeg jumaa yeeg barabi tafsiir yi waaye nag di ko dund mu nekk ci jikko da caa am solo ndax boo koy def ni nga ko war a defee day feeñ ci say jikko nam war a feeñee ba koo jëflanteel mu naw la kon koor dafa am lu def si ci ñun dafa am lu mu lu mu def si ci ñun danaa ci ñëwaat ñu gën koo yaatal xool ba xam ndax mi mu koy defam déet alxuraan dafa am lu def si ci ñun danañ ci ñëwaat xool ba xam ndax mi ngi koy defam déet julli noonu azaka noonu aj màkka noonu lenn lu ne dafa am lu mu def ci ñun moo tax suñ borom nañu woon ca koor ga laallakum tattaquun alquran nag moom yahdi lillati hiya aqwam di jubal aw nit jubal aw nit nit ñan ki koy dund ki ko jël teg ko ci aw yoonam jaar ca wammatoo alxuraanul karim alxuraan di ko gindi doon lu koy jubal teg ko ci aw yoon ba du juum yal nañu yàlla boole sàmm teg ñu ci alxuraanul karim dimbali ñu bañ koy dund waaye defal ñu nag ñu di ko yëg ñu koy yëgee ci koor gi ba lu ñu wéet wéet yëg ne mi ngi ñuy gis réseau boobu bañ a dagg mukk ñu wéyee noonu di yëgee noonu suñu borom subxanahu wa taala mu jàppandel ñu suñu yëngu ak suñu dal nangul ñu suñu koor te nangul leen ko sàmmal leen seenu njaboot. te barkeelal boroom kër yi te yokk seen wërsëg te def ci réew mi jàmm defal ko jàngkati alxuraan yi jàngalekati alxuraan yi ak ñiy dimbali ñuy jàng alxuraan ak di ko jàngale yàlla mën na ko yàlla na ko def jaajëfal nañ ne bu baax a baax ci ànd geeg ñun ci jotaay bii di almisbaax jaajëfal baax oustaz Alioune sàll moom la ñu bàyyee barab bi mu ànd ak ñun ci waxtaanu fajar yi ñu ànd ñun ñëpp déglu ko ñaan suñu borom subxanahu wa taala mu sàmm ko te sàm ñu. ñaan mu defal ñu jàmmee àdduna te defal ñu suturas àllaaxira seen mbokk Mbàkke Sylla ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di almisbaax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa